amul tuyaaba jàng kaamil amul tuyaaba ci néew man maa ko wax amul tuyaaba ku ma indil dalil nag bu jubee ma nangu nee ma yonent bi def na ko wala saxaaba yi def na ko wala yonent bi jàngale ko wala saxaaba yi jàng yonent bi dee na deele na ndax saxaaba yi toog nañ tas kaamil ku nekk di jàng kaamil boo xam da ngay tas kii jàng jaar fii kii jaar fii yu caaxaan yooyu nañ ko bàyyi dëgg di dañuy dund dëgg te di ko waxante mi ngi mel ni ki ñuy wax ci rajo ñëpp di ko digg ci télévision ci Kaolack ci ci Dakar ne ku jàng alxuraan di ko may nit di defoo dara ndax xanaa bala ngaa may dara am ca yoon ndax loolu bi daal amul yoon ma sone ko jotuma ko ma yóbbante ko ne ko yónnante ne ku jàng alxuraan falahu bi kulli harfina hasanatun ma nag bu yónnante ne falahu yow ngee ne lay salahu du wax ak yow ndax sa affaire la yaag moom falahu saxal la ليس له داخل كي سخال مو يونت محمد مي يالا نيكو ما ينطق عن الهوى يوم مي واخ ياي كان فكير سبب غاي نخ بالله جروكو